te saay aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yaa xalifa rappeur a ah, ek lamiñu askan wi Moustapha Diakhaté yow waruma la sax wooye Moustapha Diakhaté yow ah. tour nga tudd mbaam xuux Diakhaté tuddal mbaam xuux jaxate parce que yow xoola amoo jom da ñàkk jom amoo ngor sax boo xooloon si ni nga tudd sax saawaay ni nga la tuddee boo xooloon si loolu saawaay di goree doo musa wax yenn tojaange yi ngay fen naan ay say waajur yow say waajur dañoo toj fenn yow say waajur di ay clochard say waajur fu ñu nekkee nekk ay clochard rek mooy jur xoola doomeraam bu mel ni yow jur doomeraam bu mel ni yow saawaay ngay toog naan dangay ngay jéem a saawaay tuutil ay waajur yi incha allah muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën si mindeef ku nga xamante ni nii saawaay xolo dañ ko tànnal ba tànnal ko papa tànnal ko yaay tànnal ko ay maamam ba si adanaan leer leeram jóge ba si adanaan di wàcc di ñëw bay wàcc si ay murata kaab ilias mudar ba ni muy ñëwee si abi mu ñëw si baayam abdallah côté yaayam tamit aminata noonu tey si tey ngay toog naan da ngay saawaay fen naa feq bi nga doon ràmbaaj naan saawaay say waajur ñoo gën saawaay yow yow yow yow yaay naafeq yow yaay ràmbaaj yaa ñàkk jom yaa bon saawaay loolu la say waajur duñ ko mus a wax <laughs> say waajur duñ ko mus a wax rawatina sa baay bi nga xamante ni saawaay xoola boo xoolee si ni mu la rek mooy loolu da di nekk di wax nii di nekk di wax di fen da leen xam baax li ngeen di wax mais bu leen xam lu leen di tontu li jëntiwuñu sax ni da nga ndax da nga juum wala dara lépp maaxàllaa laa ma ne la sumu waay bëgg màggal fen bëgg tuutil dëgg bëgg jël fen ñëw jiital ko teg ko si kaw dëgg topp benn doomu aadama gaan man la sumu waay ci yàpp yaramam di lekk di naan dereetam nekk ay dëmm man la sumu waay ji lépp gaan yow boo amee problème saa yaa Ousmane Sonko saa nga yem si Ousmane Sonko quoi mais bu si tudd bàyyi suñu sang suñu yonent ki nga xamante ni nii saa waay xoola moo tax ñuy dund moo tax ñu am suñu lëpp barkeem saa waay xoola moo tax suñu lëpp gaan man la sumu wax bu ñuy wax sax saa waay barkeem moo ko waral ax mbëggeel bu ñu am si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi man xoola xalifa rappeur ah, njaboot si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu daj amaana maa si gën a yées yaa ngi dégg maa ci gën a bon mais man mii sax lu ma bon bon bon mu xola maa la gën yow gën say waajur ngay fen naan say waajur yow say waajur fu ñu toj yow eh, ngay fenkat di sàcc bërki démoo njaay yaa ngi woon si salmaki bi di naan deretu sénégalais yi nga dem ba benn instant siisu te yàlla rek a xam xëy na amaana gaayan sa ceeb moo niinatul sa ceeb moo too tooyatul foofu nga xëy bés gaamal la sum waay génn si salmaki bi lu ne nga yàq leen ko lépp ndax sa intérêt personne ndax sa intérêt personnel ndax du intérêt askan bi ngay fen ñàkk jom bëgg lu yomb dem leen ngeen liggéey nekk ay markatu taat quoi saawaay xaaral nga bëgg delluwaat si saal Macky bi loolu nga bëgg parce que da yaakaar ni ñoom dinañ am troisième mandat quoi vraiment yaa ñàkk jom mën a fen doo dara yow yow mbaam xuux bi ma la wax nga changé tur tudd mbaam xuux jaxate sax mbaam xuux yi sax ñoo la tane amaana saawaay boo tuddee sa bopp léegi xoola boo bu bu nga tuddee mbaam xuux jaxate mbaam yi sax laa lay wax nii saawaay xoola amaana xoola dinañ grève siisu ndax mbaam yi sax amaana xoola xam nañ dayoo yan ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngay fen yow iblis sax amaana saawaay iblis sax yow moo la tane yahud bi nga doon doo leen dara boo leen jugee man la sum waaye di wax di tëbaka dal di sóob munoon wax li ngay wax lekk boo amee problème sa ay xoola nga lijjanti ko ak ki nga amal muy imaam ak waree fa koo amal problème nga lijjanti ak moom mais foog nga jéggi waa la moo tax waxoo sa sëriñ la moo tax yow waxoo sa sëriñ nga ne yow say yow say waajur ñoo gën sa waajuru sëriñ ah mais yeboo sa sëriñ quoi da nga bëgg saawaay jéemat yow bàyyi yow yaay ko quoi yow kii vraiment kii daal kii saawaay xoola wax si moom sax gaama la sumu waay mais ndax lu tax ñuy wax xoola ay porteur de voix nañ te dañ dégg ab mbir mi xoola mu naqadi ñu metti ñu indi sóob boo leen jugee gaamal la sumuwaay def seeni fen seeni sos def seeni tojaange bëgg ñëw gaan par force team sénégalais yi dëgër bët ñàkk jom taxaw bëgg màggal fen boobu ne fen bii mooy dëgg seen bopp ngeen di nax lekk xam nga ne amaana Ousmane Sonko bi nga téye saay di ko yàq lu ne <laughs> moo la ëpp la liggéeyu ndey de te moo la gën la liggéeyu ndey waaw saawaay kii vraiment gaan saawaay xoola wax si moom sax mooy loolu mais ñi dañoo alku waaw kii moom saawaay xoola ku alku la quoi ndax ku alku lek saawaay xoola mooy wax di wax yenn yi quoi noonu la demee mbaam xuux jaxate noqul fële yu la te lijjantiwuñ la ngay sëb tous xalifa rappeur laa mu ñu askan wi laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaay salaam xoola boo ko jéemee laal sa xoola ñu jaale suñu bakkan ngay sóob tous